mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ak fu ngeen man di nekk di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq aku sadaat aku njub ci sunu liggéey te saxal nu ci te barkeel ko te boole nu li nga xam ne lépp dana ci jóge ci tuyaaba insha allah eh, tey nag xam na fatawa bi xool naa mais question yi nga xam ne moom laa <coughs> moom laa fi mu <coughs> mujjoon a gis dafa mel ne vérifié naa ba sonn waaye gisuma ko dafa maa wóorul ndax am na question yu beesam déet moo tax euh, dañu bëgg def rek benn occasion ci masala boo xam ne am na importante ci jamono jii nu toll ak yëpp jamono sax xëy na jombul su amoon ci semaine bi weesu ci la doon gën ndax dana fekk fekkoon ñu jub yi nga xam ne ñoo fi jaar rawatina feet yi nga xam ne moom moo siiwi ci yeneen diine yu dul diine lislaam ba noppi tasaaroo te jullit yi fitna wu ci lool ñu dajale woon lenn ci fatawaa yoo xam ne lenn ci ay boromi xam-xam yu mag ñoo ko def mu doon ay question yoo xam ne dañ leen ko posé woon ñu tontu ko lu aju ci li ñu tuddee ayidul milaad moo xam Christmas lañ koy tuddee wala tur wuñ ko mën a jox waaye mooy feete juddub yonent yàlla isa alayhi salaam wala leneen lu mën a doon ci feet yi nga xam ne feetu diine la boo xam ne dafa nekk ci diine judul diine lislaam wala bu nekk ci biir diine lislaam it mu doon loo xam ne luñ fent la te saxut laaj bi nga xam ne moom lañ ci mu nekk ci sama kanam nii doon biñ ci njëkk a jot cheikh mohammad ibnu saleh al utaymin lañ ko laaj dama ko ndax moo ci gën a yaatal ci tont waaye teewul am <coughs> am na ñeneen ñoo xam ne laaj bu mel noonu jëm si na ci ñoom boo xam ne ñoom tontu nañ ko ñoo xam ne xëy na ku doon toftale rek comme ku ca gën a mage jombul nga toftale ko neneen waaye nag comme que tontam dafa gën a moo tax ma tàmbalee ci moom dañoo laaj fadilatu cheikh mohamad ibnu salih al kuffar bi iid al christmas lan mooy asteb ndokkeel ñi nga xam ne duñ ay jullit ci feet yi nga xam ne mooy seeni feet ak nan lañ leen di tontoo ñoom su fekkee ñoo ñëw ndokkeen ak ndax dana dagan dem ci place yooyee nga xam ne fa la ñuy defe feet ya ak it ndax nit ki dana am bàkkaar su fekkee su fekkee def na dara ci yooyu te fekk jubluwu ca feet waaye da koo def rek fekk daal maslaa ko ca dugal wala kersa wala mu ragal a rusloo ki nga xam ne moo ñëw di ko ndokkee wala yu mel na ak it ndax dana dagan def loo xam ne day nuroog ñoom te fekk yow jubluwoo ca feet maanaam ci misaal ña ngay togg ka yekk nga xëy soppi na toggeeg na nga doon yekke toppi saw ñam daal ak saw nekkin ci sa kon loolu mooy question bu jëm si ci cheikh mohamad ibn salih al usaymin rahimahullah mu tontu lii mu ne tahliatu alkuffari bi iid alchristmas aw gayrihi min ayaadihim addiniyati xaraamun bil ittifaq nee na ndokkeel ñi dul ay jullit ci seen gépp feet goo xam ne daa bokk ci seen feeti diine loolu boroomi xam-xami lislaam dëppoo nañ ci ne lu xaraam la mu ne kama naqala dalika ibnu alqayim rahimahullah fi kitaabihi ahkaamu ahli zimma mu ne ibnu qayim toxal na dëppoo goog yi nga xam ne boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci ci téeréem bi ñuy tuddee ahkaamu ahli zimma ak tepp ñi nga xam ne dëkk ak jullit yi te doon ñuy jullit mu daal di waxi ibnu alqayim ibnu alqayim daf ndokkeel leen ci lépp loo xam ne dafa jagoo seen kéefër gañ nekk nee na loolu lu xaraam la ci loo xam ne boroom xam-xam yépp dëppoo nañ mu ne mel ne nga ndokkeel leen ci seeni feet wala ci seen koor nga di leen wax ne iid aleyk maanaam yàlla na sag feet barkeel wala yàlla na nga am bànneex wala lu nuroog loolu mu ne yu mel nii de su fekkee ne ki ki jàkkaarloo ñoom di leen wax su fekkee mucc na ci kéefër moom ci boppam kon kon itam tàbbi ci xam lu xaraam la mu ne loolu wuute wut ak nga ndokkeel leen te fekk ña ngay sujjootal croix nga ndokkeel leen ci loolu mu ne lii nga ndokkee leen ci seen feet yooyu Ibnul Qayyim mooy wax nee na bàkkaaram fa yàlla moo gën a màgg bàkkaaru ki nga xam ne daa ñëw fekk kuy naan sàngara mu di ko ndokkeel walla bàkkaaru ki day bëkkan tooñ ko nga ñëw di ko ndokkeel walla bàkkaaru ki njaaloo mu ne lu bari nag ci ñi nga xam ne teguñu diine fam nekk fonk ñu diine nee na lu mel noonu daf leen di dal te fekk xamul ne lii mu def lu bon la nee na képp koo xam ne ndokkeel na nit ak mooy yàlla wala ci wala la muy def nekk kéefër nee na kooku yóbbee na boppam merum yàlla tabaraka wa taala loolu mooy wax i ibnul qayim bi nga xam ne ibnu usaymin da ko toxal ci biir fatwaam mu continuer di wax nag moom cheikh ibnu usaymin mu ne li tax ndokkeel yéefar yi ci seeni feet dafa nekk lu xaraam xaraam gu toll nii Ibnul Qayyim wax mu ne ndax dafa am lu nekk ci biir moo di dangaa saxal dangaa mel ne ku nangu li ñu nekk moo tax nga jib leen ndokkeel dangaa mel ne ku gërëmloo loo li ñu nekk su fekkee ne gërëm loowut kéefër ci boppam waaye nee na fekk nga ku nekk ci kéefar nga gërëm loo la muy def te loolu moo gërëm loo kéefar benn la nee na kon araam na ci bépp jullit muy gërëm loo lenn loo xam ne dafa bokk ci sha'airul kufr mooy yoo xam ne yi dañ ko jëfandikoo walla muy ndokkeel keneen ca loola mu ne ndax yàlla moom bëggul kéefar te ko gërëm loo sunu borom tabaraka wa moo wax ne in takfuru فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم nee na sunu borom nee na su fekkee ne da ngeen a weddi maanaam da ngeen a tàbbi ci kéefar yàlla day loolu du ko wàññi dara moom dalu na sëkk te moom du gërëm kéefar mukk su fekkee nangu ngeen a sant nag te nangoo jaamu yàlla loolu borom bi tabaraka wa loolu lay gërëm mu teg te ne sunu borom tabaraka wa taala wax na ne alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum nicmati wa raditu lakum alislaama diina nee na sunu borom sunu borom nee na diine ji mat na matal naa sama xéewalu <coughs> diine liseen te itam gërëmloo naa leen lislaam ji maanaam lislaam ji ma gërëm te sant ko mooy lislaam ji ma wàcce ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndokkeel leen ci loola day xaraam na moo xam ndax jamono yi nga koy ndokkeel bokk nga ca feet googee di def maanaam si bég ngay bég si taalifitaar ngay taalifitaar ndax bokk nga ca wala bokkoo ca waaye ndokkeel ga rek moom xaraam na mu ne su fekkee ñoo ñëw nag fekk nu fan nekk ñu ndokkeel nu nee na du dagan ci nun nu di leen tontu ndaxte loola nun du sunuy feet te it nekkul feet yoo xam ne suñu borom tabaraka wa da ko gërëm loo nee benn yooyu ay feet yoo xam ne ay biddaala yoo xam ne ñoo ko sax ci seen diine su fekkee ne am na ci yoo xam ne dañ ko yoonaloon ci seen diine it yooye moom nasaxal nañ ko bi diine lislaam ñëwee maanaam wala balatu diine lislaam ji nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala moom la yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam jox ko mu di ko jottali te jëmale ko ci mboolem bindee yi xam ne sunu borom moom la wax ne wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l min alxaasirin nee na diine jooju la yàlla wax ne képp koo xam ne yaa ngi sàkk ne judul diine lislaam loolu kenn du ko nangu ci yow te bu ëllëgee ca àllaaxira mu ne jullit bi dem wuy ci seenu woote ci xew xew-xew bu mel nii nee loolu xaraam na ndax wuy ji woote bi nee na moo gën a rëy dajeeg ñoom rek ndokkeel leen ci seen xew-xew boobu yi ndax wuy ji gi moom niñ ko mën a firee nee na mooy bokk ak ñoom loola mu teg ci ne nekk noonu dana xaraam ci bépp jullit mu nuuru nuuru lu yéefar yi ci taxawal lenn luy nurook xeetu seet ci xew-xew yooyu kon bu dee ak lekk bu mu soppig lekkam bu dee ak naan bu mu soppig naanam bu dee yi ñuy taal bu mu taal bu dee yi ñuy jënd di sol bu mu jënd sol na dunde na mu doon dunde mel ne dara xew nee na kon dara xaraam ci jullit yi ñu di leen nuuru nuurulu ci defar bépp xeetu feetu ci xew-xew yooyu wala ñuy weccente ay kado wala ñuy séddale ay gato wala ñuy togg ay ñam di ko joxe wala ñuy feetu ci boobu maanaam bañ a liggéey ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum nee na ku nuru nurulu aw daal ngay bokk ca ñooña mu teg ci moom cheikh mohamad ibne utaymin mu ne cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullahu wax na ci téeréem bii di wax bi mu tuddee iqtidaau siraat almustaqim muxaalafata asxaabi aljahim nee na wax na ci téeréem boobu mu ne mushaabahatuhum fi a acyaadihim tuujibu surura quluubihim bima hum alayhi min albaatil nee na nuroo nurulu ak ñoom ci seen lenn ci seen feet yi ñuy def nee na loola dafay tabbal mbégte ci seeni xol ñu bég ci neen yooyu ñu nekk ndax dañ naan neen yi ñu loolu yi ñu nekk su fekkoon ne ay neen la kon jullit yi duñ ci bég nee na te amaana togg yooyu ñuy togg di ko jox nit ña mën nañ caa jaare ba xëcc lenn ci ñi nga xam ne ñooy ñu doyadi ñi ci jullit yi nga xam ne dañoo ñàkk wala dañoo néew ay pexe <coughs> loolu ci gis bu xóot la ci Ibnu Taymiya ndax xam nga ne lu bare bari ci ñuy xëcc jullit yi tey di leen dugal ci jëleen diine wala ñu di leen génne deeni lislaam wala ñu leen koy yàqal dañ koy jaarale ci seeni soxla bu fekkee dañoo feebar ñu wutal leen ay fajukaay bu dee dañoo ñàkk ñu wutal leen luñ am di leen séddale ay lekk ak yu mel noonu ndax xëcc leen yóbbu leen ci leneen lu mel noonu lay junj foofu mu ne képp koo xam ne def na loola maanaam euh, fekk lam ci jublu mooy mu jaamala muy maslaa rek wala won leen ne bañu ma leen wala mu defe ko ci kersa wala lu mën a doon ci sabab yi nee na loola kooku ka def loola def na lu xaraam ndax loolu mudaaxana la maanaam tuddul mudaaraa waaye mudaaxana la mooy dellu gannaaw yow ci sa diine ngir wute ko mbégum doomi aadama te it nee na loolu dafay dëgëral moraalu ñi nga xam ne ñoom ñoo yéefar yi duñ jullit yi ba tey daf leen di feddlil ñu gën a mën a damu ci seen diine mu teg noo ngi ñaan yàlla mu may jullit yi tiraanga ci seen diine wërsëgaleen ak leen ak jafandu ci diine jooju ba mu dëgër nee na te leen ba seeni noon duñu leen mënal dara amin kon loolu mooy fatwa Cheikh Mohammed ibnu Utaymin rahimahullahu taala Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah laaj bi def ne baadu almuslimina yusharikuuna annasara fi acyaadihim fama tawjihukum lenn ci jullit yi dañuy participer maanaam dañuy bokk ci feeti nasaraan yi ah ban orientation ngay joxe ci loolu mu tontu mu ne laa yajuuzu lil muslimi wala al muslimati musharakatu nasara aw al yahud aw gayrihim min al kafara fi acyaadihim bal yajibu tarku dalik li anna man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum والرسول صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من مشابهتهم والتخلق بأخلاقهم nee na daganul ci ab jullit muy bu góor wala bu jigéen daganul ci jullit bu góor wala bu jigéen mu ñëw di bokk ak nasaraan yi wala yahud yi wala ñu dul ñooñu sax te bokk ci ay yéefar mu ñëw di ànd ak ñoom seeni seet di ko def loolu jaadu na ci ab jullit mu bàyyi ko ndax képp koo xam ne nuuru nuuru na aw nit nee kooko day daal di bokk ci ñoom kon mooy xadis bi cheikh Mouhamad ibn Uthaymeen indi woon moom lay junj mu ne te yonent bi yàlla bi alayhi salaatu wassalaam wattandikuloo nanu nuy jéem nuroo ak ñi dul jullit ci seeni melokaan walla nuy jéem a jikkoowoo seeni jikko mu teg ca jaadu na ku gëm yàlla nga di jullit bu góor wala ngay bu jigéen nga wattandiku loolu lépp te daganul ngay dimbali kenn ci loolu ci lenn ndax kat ay feet yo feet la yoo xam ne dafa juuyoo ak shariatul islam daganul kenn di ca participer di bokk wala ngay dimbalante ci lu koy taxawal wala nga di leen dimb dimbalee lenn mu ne laa bi shaay wala bil qahwati wala bi gayri zalik du dagan nga dimbali leen sax ci attaaya nga tàngal ko jox leen wala nga di ko tàngal di joxe te fekk loolu nga ci jub wala café wala lu nuroog loolu mel ni kuy able ay ndax moo tax mu ne kal awaani wa gayriha mu ne ndax sunu borom tabaraka wa taala nee na wa taawanu ala albirri waltaqwa wala taawanu ala alismi waludwan wattaqu llaha inna allaha shadidu liqab nee na sunu borom tabaraka wa taala nee na su ngeen di dimbalante dimbalante leen ci lu baax akuk ragal yàlla waaye bu leen dimbalante ci bàkkaar ak lépp loo xam ne jalgati la te na ngeen ragal yàlla ndax yàlla mbugalam ku tar la mu ne kon daal فالمشاركة مع الكفرة في أعيادهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان nee na ànd ak ñoom dimbali leen jàppale leen ñoom yéefar yi ci seeni feet nee na loolu benn façon la benn xeet la ci dimbalante ñoom ci bàkkaar ak jalgati loolu mooy fatwa Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah Cheikh Abdullahi Ibn Jibrin rahimahullah mu bokk ci borom xam-xam yu mag yi moom itam laaj bi def ne ko maa xukmu akli taam alladi yucaddu min ajli ciidi nasaara wa maa xukmu ijaabati dacwaatihim cinda ixtifaalihim bi mawlidi almasiixi alayhi salaam lan mooy atteb lekk ñam wi nga xam ne dañ koo préparé feetoo ko feeti nasaraan atteb lekk ñam ba lañ ko laaj ak lan mooy atteb woote bi nga xam ne mën nañ koo invité nit ki ci feet goog yi nga xam ne day aju ci juddu yonent yàlla isa alayhi salaam cheikh abdullah ibn jibrin mu tontu mu ne laa yajuuzu al ixtifaalu bil acyaadi al mubtadaa ka ciid al milaadi lin nasaara wa ciid al nayruuz wal mahrajaan wa kadaa maa axdasahu al muslimuuna kal milaadi fi rabiicil awwal wa iid al israa fi rajab wa naxwi dalik nee na daganul ñuy feet ci benn feet boo xam ne feetu biddaa la mu ne lu mel ne iidu milaad yi nga xam ne nasaraan yi ñoo koy def wala feet bi ñu tudde Nayruuz ak Mahraja nga xam ne perse yi ñoo koy def wala sax ay feet yoo xam ne jullit yi ñoo ko sos mu ne lu mel ne feetu juddu bi nga xam ne dañ koy def ci weeru rabiul awal wala feetu rañaan gi nga xam ne dañ koy def ci weeru rajab mu teg ca ne walaa yajuusu al aklu min dalika altaam alladi aaddahu alnasaara aw almushrikuuna fi mawsimi acyaadihim nee na ñam wi nga xam ne nasaraan yi wala yéefar yi ñoo ko préparé ci seeni feet kooku daganul ab jullit di ko lekk wala tajuuzu ijabatu daawatihim inda al ixtifaali bi dalik te it daganul kenn di wuy ji seenu woote su fekkee ni ñu ngi feetoo feet yooyu mu ne wa dalika li anna ijabatahum tashjiicun lahum nee na wuy ji leen ku ko def yaa nga leen di soññ ca bidaa bañ nekk wala kéefar gañ nekk wa iqraarun lahum ala tilka al bidaa nee na yaa nga leen di saxal di leen dëgëral ca bidaa yooyu te nee na loolu day nekk wa yakunu dalika sababan fi nxidaai aljahalati bi dalik nee na loolu dafay wor ñi nga xam ne xamuñu maanaam ñi réer buñ gisee boroomi xam-xam wala nit ñoo xam ne ci daawa lañ nekk ñëw di bokk ca loola feeti bi daa yooyee wala feet yi nga xam ne nasaraan yi ñoo koy def nee na ka xamul diine day defee ne loolu dara nekku ca moo tax mu ne wa atiqaadihim annahu la ba'sa bihi dañuy daal di yaakaar ne loolu amul dara lu ci nekk mu daal di koy teg ne wallahu aalam loolu mooy tontu Cheikh Abdullah ibn Jibril conseil scientifique bu mag bi ñuy wax nag euh, al-lajnatu daaimatu lil buxuuti al ilmiyati wa daawati wal irshadi wal mooy conseil scientifique bi a magee ci biir Arabie Saoudite ñoom itam dafa am seen fatwa bu ñu def boo xam ne membre yi ñoo ko signé ka nekk ca bopp moom nekk Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz fatwa bu gàtt la waaye la ñuy waxoon rek moom lay gàttal lañ fa wax <clears throat> moo di ne laa yajuuzu lil muslimi an yusharika al kuffara fi ayaadihim daganul cëb jullit muy participer di bokk ci feeti yéefar yi wa yudhiru lahum al faraxa wa surur muy feeñal mbégteem bi haadihi al munasaba ci xew-xew boobu loolu daganul wa yuattilul amal ay itam xëy dem bañ liggéey mu ne nag sawaun kaanat diiniyatan aw dunyawiya moo xam feet yooye dañ ko tudde feetug diine wala feetug adduna lañ ko tudde waaye ginnaaw kurul julli ta ko moom koo ko daganul julli bi di ca feet mu ne li ann hada min mushabahati aadai illahi almuharrama nee bokk na ci nuroo nurlu noonu loolu kenn ku nekk dafa xaraam mu ne sax na wala ñu ne sax sax na jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp koo xam ne nuuru nuuru na nuuru nuuru na aw nit nee na kooka bokk na ci ñoom mooy xadis bu ñu andi woon kon loolu ay tomb la yoo xam ne ak ubbee la boo xam ne boroom xam-xam yi lislaam ak sunna yi gën a màggee ci sun jamono jën dajeel ñoom ñëpp yàlla leen sun borom tabaraka wa taala yërëm yërmaande ju yaatoo yaatu euh, loolu mooy seeni wax ci xew-xew boobu nekk seen fatwa ñu tuxal ko kon nettalee ko niñ ko waxee di ñaan suñu boroom dogal mbokk yi man cee jariñu xëy na ni ma ko waxee mu jiitu woon xew-xew yi moo gënoon waaye nag doonut luy faat tab xam-xam la boo xam ne nit ki làmboo ko lu baax a baax la ndax jamono yu nekk day ñëwaat xam ngeen ne semaine yi ñu génn yépp connexion bi dafa jafe woon bu mënuñu woon a dugg ci internet bi loolu moo taxoon semaine bi passé mënut woon a jàll ne ci lañ ko yéene woon qaddarallahu wa ma shaa faal kon defe naa ne foofu liñ bàyyi woon xel foofu la yam su fekkee ne suñu technicien bi jaabir am na ay question yoo xam ne dafa nekk ci kanamam euh, suñ diggante ak vingt deux heures des na ay minutes yoo xam ne war naa dem ba jege ñaar fukk kon danañ ko mën a bàyyi su fekkee yor na question bu mu bëgg a wala boo xam ne nee na mbokk bëgg na ko koo envoyé wala yu mel noonu ñu bàyyi ko ñu posé ko su fekkee ne lu mel noonu amul ñu daal di gàttal jotaay bi foofu yëkkati ko te daal di dellu ci yeneen yitte yi itam lu garanti loo xam ne su ko tuubee du ko def mukk waaye nag baamtu bàkkaar bu mu tee mu tuub bu nit ki di baamtu ay bàkkaar ba mu yàgg mu ne bàkkaar bii xam naa ne mënu moo ko bàyyi déedéet saa bu defee bàkkaar bi na tuub dellu ci yàlla na rëccu saa bu ko bakkanam manaatee wala seytaane manaat ko ba mu duggaat te bàkkaar boobee na tuubaan ndax borom bi tabaraka wa na ne képp koo xam ne tuub na mu jéggal la te ku borom bi wax ne wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuuna laallakum tuflixuun na ngeen di tuub yéen ñi gëm yàlla fu ngeen toll loolu daf lay wan ne bàkkaar ci boppam dafa doon loo xam ne doomu adama ji dina ginnaaw nekkatub yonent munu caa mucc moo tax kon fu mu toll fu nekk rek nay nay tuub beneen question bi boroom daf koo posé nii mu aju ci wàllu jigéen joo xam ne dafay jàpp defe naa su fekkee dégg naa li mu bind ci français dama ko doon liir jàll na waaye du sori loolu jigéen ji nga xam ne dafa war a jàpp te fekk dafa teg ci boppam ay mèche wala mu teg ci përëg boo xam ne dafa muur bopp bi carrément kooku euh, nan lay jàppe ala kulli xaal euh, la jiitu mooy loolu yi mu def ci boppam luñ tere la lu xaraam la ndax bépp yokk boo xam ne xeetu yokk karaw la kooku l'islam daf koo xaraamal yonente bi sax daf koo rëbb daf ne yàlla rëbb na jigéen ji nga xam ne day yokk karawam wala ñi ko koy yokkal ko koy yokkal rëbb na ko kon doon na loo xam ne bàkkaar bu mag la boo xam ne jaaduwul moo jël lu mel noonu këpp ko ci ñooyam su fekkee def na lu mel noonu nag di jàpp su fekkee ne buy masa masaa bopp bi day dana laal kawar kawaram gi nga xam ne mooy karawu boppam masaa ba dana laal kawar kawaru boppam gi sax ci bopp bi su boobaa loola yàqul am njàppam waaye su fekkee su masaa nag ci përëg bi lay yem wala mu yem ci mees yi du laal karawam su boobaa am njàppam baaxul te su njàpp ma baaxut it su julli ga baaxul billah loolu defe naa ndax ndax mi mi ngi dégg alhamdulilah su fekkee ne mbokk mi laaj loolu déglu na bu baax a baax ci li jàll ci fatawaayu masaayix yi jàll moo di ne suñ la ko waxee yow bul tontu suñu la waxee bépp baat boo xamee xeetu ndokkeel la ci feet boobu bul tontu loolu moo war a nekk taxawaayu taxawaayu jullit bi mën nga nakk-nakkal rek jàll waaye doo ko wax dara loo xam ne wax ju leer lay doon yoo xam ne ndokkeel ko lay doon ci xeetu xeet boobu amaa bi nag kooku euh, ab woote la boo xam ne daanaka su ma ko doon gàtt dama naan euh, sunna moo woote ndax ahlu sunna ci senegal ñoom ñoo woote ñun ñëpp nu war caa wuy ji am itam programme boo xam ne moom lañ teg bis booba mu doon loo xam ne moom la war a jàllale ci woote boobu mu doon loo xam ne ñi koy defit lañ ci jublu yiw la ak leeral ak waxtaan ak seen mbokki sunna yi daanaka it mu doon yoon bu jëkk boo xam ne jàpp nañ ne ahlu sunna ci Sénégal bokk nañ daje fi benn béréb bokk wenn waxtaan woo xam ne ñoo ko wax jëmale ko ci Sénégal mu jëm ci ñëpp jëm ci seen bokk jëm ci seeni ndaw jëm ci seen jigéen doon itam daje boo xam ne ñi nga xam ne ñëpp mën nañ faa teew dañ leen di woo ngir ñu teew ko di ñaan suñu borom tabaraka wa mu jàllale ko ci jàmm woote jàmm la woowu jàmm ni kese kese moo ca nekk incha allah Euh, leeral yu war a leer ak xam xamle yu mat a xam ak waxtaane yu mat a waxtaane loolu rek moo ko tax a jóg kon mboolem ñi koy dégg dégg nekk ci réew mi ñu ngi leen di woon ñu déglu ko mbokk yi yor organisation bes mel na ni dégg naa ñuy junj di wax ne du ñàkk ne xëy na danañ ko mën a jàllale direct ci lenn ci site yi xam naa ku jokkaloo suñ mbokk Omar Diallo da xam Euh, ban site moo koy jàllale wala ku mel ni mbokk mi Abo Salima itam su fekkee mi ngi dégg moom it dana ci mën a joxe ay mbir yoo xam ne yu leer lay doon. moom jigéen sax la wax jigéen ji julli ci gannaaw imaam boo xam ne julli gi daal dafa gaaw ba ëpp roko yi xam naa ak sujjóot yeeg yooyu yëpp daanaka du ko mën a def def bu mat muy wax ndax man na dagg julli gi dem julli julli boppam loolu moom góor ak jigéen ñoo ci yem ci ab atte euh, problème la it boo xam ne dañ koy dund mooy ay julli yoo xam ne julli yu amatu gàll la jaadu na ñu laaye biir ñi nga xam ne euh, ñooy imaam yi wala lu jiitu laaye biir imaam yi sax laaye biir ñi nga xam ne ñooy tànn imaam yi ci jàkka yi ñu di ko tànn teg ko ci yoon woo xam ne yoonu xam-xam la ay boroomi xam-xam di ko tànn ñuy jiital ñi nga xam ne ñoom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu jiital leen julli ga na rafet njàngum alquran ma na rafet ndax ka ka dàq jàng alquran kooku moo war a nekk imaam ja bu fekkee ne ku maandu la la ca des mooy li ñëpp war a bokk le mooy julli bu yàqoo ñu mën koo defar tey it julli ko julli gu dal goo xam ne nit ñi seenu julli du yàqu su fekkee lu mel noonu amul nag nit ki su fekkee wóor na ko ne imaam ji laaya nañ ko biir pexe yu nekk jéem nañ ko def te nanguwut a soppi ni muy jullee nga xam ne julli nit ñi day yàqu ci gannaawam su boobaa nag wax dëgg yàlla neexul neexul ko sañoon julli ci jàkka waaye borom xam-xam yi ñenn ñi li wax foofu mooy day ànd ak moom julli ba noppi ndax garde julli mbooloo gi su noppee mu fay julli boppam am ci ñoo xam ne dañoo wax nañ dañu seeti jeneen jàkka su fekkee jeneen jàkka am na jullee ji foofa su amul nag jar na sax jullee feneen waaye bañu gis gannaaw ko wallahu alam <coughs> fi ñuy def la ñuy def na doon lu yem loo xam ne ci seen biir la yem seen i tëgg ak seen i way loolu mooy benn beneen bi ci des mooy li mu wax ne ndax sunna la ñu xam la ne foofu maanaam lu ñuy wax sunna nekku fi ndax lépp loo xam ne lu sharia xaraamaloon la ba mu yàgg am benn diggante boo xam ne dañ ko fa daganal kon kooku bu boobaa ruxsa lañ koy tudde maanaam lu lu dagan waaye duñu wax ne sunna la ndax su doon sunna moom day daal di jaadu képp kuy def ak kéet ku mën a doon rek ay nit ay jigéen war nañ faa daje euh, di tëgg ak di di woy te mbir ma demewul noonu maanaam su fekkee def nañ ko daal te teg ko ci na sharia santaane su boobaa tere gañ ko tere woon daal nay soppi ku doonatul luñ tere waaye nag su dul loolu day daal di doon loo xam ne luñ tere lay doon xadis <coughs> bu wér dëgg la nag alxilm muy lewet ab lewetaay lu baax a baax la loo xam ne melokaanu jullit la jullit bu nekk dafa war a jéem a fexe ba wextanam ak xadaram mu wàññi fexe ba soppi ko doon koo xam ne ku lewet nga xam ne du mer ci lu jër te mer su meree it dana xam nan lay maîtriser boppam ba mën a def loo xam ne lu jaadu la lu jaaduwut lu nekk mu daw ko kon kooku mooy lewetaay loolu nag euh, lu baax a baax la ci jikko yu rafet ci la bokk waaye nag pour ne xaw naa doonub yonent nag loolu doonut ab xadis soxna si mi ngi laaj laaj boo xam ne moom itam boobu boo am solo la <coughs> mooy xale yi léeg-léeg ci yenn organisation yi dañuy am ay cadeau yoo xam ne ci xew-xew yooyu dañ koy jël di ko jox xale yi ala kulli xaal euh, loolu lépp bokk na ci mbir yi nga xam ne yu yu doy doy waar la te muy dund jamono joo xam ne euh, yu xaw jafe mucc la waaye jullit bi kem kàttanam rek na jéem a wattandiku lépp loo xam ne lu aju ci lool la lépp loo xam ne lu aju ci loolu laag luñ koy neexaleeg luñ koy jox ak lu ñuy joxe doomam ak yooyu yëpp na ko wattandiku kenn kàttanam même suñ ko ci joxoon mu nangu ko sax na fekk mu feeñ ci kanamam ni mu bégu ca amu ca benn kii boo xam ne réaction boo xam ne dana tax bu ëllëgee kenn du ko ko jox ndax mu noppalu ca loolu su ma nee wax nag carrément ne noonu yu mel nii duñ ko jël loolu moom laa fekk ne mooy li gën donte xaw naa doon loo xam ne lu doy waar la ci wàllu maslaa yi dox ci diggante nit ñi ak yu mel noonu waaye daal na jéem a góorgóorlu kam kàttanam daal ne ko sun borom tabaraka wa taala waxee fattaqullaha mastataatum seen kam kàttan rek na ngeen wattandiku na ngeen ragal sun borom tabaraka wa taala alhamdulilah ndax dagan na soxna di la wooyee papa su fekkee waxin la nga xam ne aada leeral aada leeral na papa jooju la mu ci jublu su boobaa nag dara du ca nekk waaye su fekkee nag papa joo xam ne dañ ciy jublu wàllu askan nag mel ne mooy baayam su boobaa loolu nag du jaar te it jàpp naa ne ñu bari ñu koy wax nag wàllu aada rek lañ ci jublu waaye doonut loo xam ne wàllu sharia la su aada yu mel noonu doonu loo xam ne sharia du ci du ko tere ndax li yonent sallallahu alayhi wa sallam di soññi jigéen yi di wax ne xusnu tabaul bokk na ci yi nga xam ne dafay jigéen ji daf ci am tuyaabu mooy rafetal ab nekkinam digganteem ak boroom këram ak di ko wax loo xam ne lu sedd xolam la di ko ko defal yu mel noonu su fekkee ne yëg na ne lu neex borom këram la te lu sedd xolam la te it comprendre na ne papa ji jubluwuñ ci loo xam ne bàyyi la daa def na su boobaa dara ne parce que ñi koy ragal ci borom xam-xam dañoo ragal mu nuroo ak nit ki wax jëkkëram ne ko yàgg sama bàyyi laa yemale wala ku góor ki wax ndeyam ne ko yaag wax jabaram ne ko yaag sama ndey laa yemale waaye fekk na kii wax loolu nag jubluwut loolu suñ ko ko laajoon tam du la wax ne mukk loolu laa ci jublu lu dul nag su mer dikkee ba xuloo am nit ko wax lu mel noonu kooku nag atteb sharia ba foofu lay door a dikkee su fekkee wax na ko loo xam ne daf ne ko yaag sama papa laa yemale wala kenn ko yaag sama ndey laa yemale kon defe naa mën nañoo yem foofu allah li des ci question yi ngeen yóbbante ko mbokk yi nga xam ne ñoom ñoo yore loolu incha allah bañ daje ci àllarba bii di ñëw bi idnillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa